gis nañ ni ay xibaar yoo xam ne si am na sax ñu ni ab euh, këru yëglekaay boo xam si France tugal la nekk moom moo ko fësal euh, buy wax ni président la Lamine Diack bi mu jàkkaarloo commission bi nga xam ni euh, IAAF bi nga xam ni moom la jiite woon te jóge fa léegi daf ko doon diglu ci ay mbiru njuuj njaaj ak ay wàllu luubal yoo xam si dañ ko caa tudd ba doon ko ci diglu ñu ni journal boobu dafa tudd wala dafa wax ni président Lamine Diack ci kanamu commission boobu dafa wax ni xaalis bi mu jël euh, dafa dafa dafa dafa dafa servir euh, financer campagne opposition parce que la aussi am na solo ñu rappelé ko amul benn moment boo xam si journal bi ci boppam même buy relater fait yooyu tudd na wax na ni président Lamine Diack tudd na président Macky Sall wala journal bi ci boppam tudd président Macky donc loolu dafa baax ñu leeral ko li amit leneen li Euh, euh, li ma jàpp man euh, lu mel noonu bu amee tollooguñ fuñ naan am na wala amul wala dëgg la wala du dëgg mais jàpp naa ne boo dee bu ñu nekkee ci réew boo xam si xañ na tasum xibaar am na dimension bu mu fi am war nañoo jël suffisamment de recul suffisamment de précaution pour mën a xam bu baax li nga xam ni noonu la ñuy bindee wala noonu la ñuy waxee wala noonu la ñuy taataane ay xibaar jagleel ko askan wi damay wax fàttali ni. Euh, li nga xam ni moom moo di taskatu xibaar yi li tubaab di duppee manipulation léeg-léeg mën leen tax a dugal wala wax loo leen wala bind loo leen xañ si ñoom ñu koy bind sax amaana du dañoo ci am intérêt wala dafa am lu ñu ciy wut wala dañoo ko tay di ko bind mais léeg-léeg mën nañ leen a dugal ci li nga xam ni moom moo di erreur moo tax ma ni ci contexte bu mel nii euh, dafay baax journaliste bi am suffisamment de retenue xam bu baax ni mu ciy demee fexe aussi ci li muy bind ak li muy taatan di ko jox nit ñi moo wut ci lu dul sénégalais yi ak ñi ko xam ne ñoom ñoo koy liir wala di ko seetaan wala di ko diglu am li nga xam ne moom mooy dëgg gi ak nga xam ne moom mooy information yu baax yi loolu yaakaar naa ni euh, nekkul ni damay jàngal nit ñi seen liggéey nekkul ni aussi dama leen di euh, defal un cours de déontologie mais damay fàttali rek li nga xam ne ay principes la yoo xam ne ñun ñëpp ñoo ko partagé ndax ñoo bokk école yu ñu jànge ñoo bokk aussi principe yoo xam ne si ci lañ ñu tàggat leneen li mooy euh, bu loolu amee. bu ñu fàttali bu ñu réeri mbir aussi ni ci mel nii buy am léeg-léeg kenn mënul nattable ni parfois mën naa am ay manipulation ci ginnaaw ndax euh, am na lu lu mel nii ñaare dinam ñuy làqatu ci ginnaaw mën nañu nekk ci réew mi mën nañu nekk bitim réew mën nañoo nekk sax nag ci lobby yooyu yoo si mën nañoo dem ba bëgg gëmloo ni lu mel noonu mën naa nekk man financement yi mën na fee dugg wala ñu ciy jéem a sax laaxaale président de la république te ku xam président Macky Sall xam ni nit la ko waxee si dara ñu rukk lu leer. lu dëgg lu dul li nga xam ne wax dëgg yàlla moom la xel mën a nangu te may fàttali ni man mii di wax a yéen nekkoon naa ci directoire de campagne Macky 2012 waxuma la nekk ci biir directoire bi rek mais cabinet de campagne bi nga xam ni moom moo doon coordonner tut sa campagne euh, sur l'ensemble du territoire national ci la bokkoon ñu nekkoon fukki nit soxna Aminata Touré nekkoon ci Abou Abel Thiam nekkoon ci Racine Talla nekkoon ci euh, ñi nga xam ni ñoom ñoo ku ñuy wax Ousmane Ba bi ngeen xam attaché de presse président de la République ak ak ñeneen may na ñu ñu gis ni par rapport ak xañ na lu ñu bëri yaakaar président de la république daanaka ci anam yu metti ci la battre campagne moyen matewul woon logistique am matewul woon lu bëri manqué woon na xañ na fitam euh, euh, engagement am euh, ak ak ak ak dëggoom ak it aw xarañam ak xañ na am ay pexe moom moo tax mu génn ci li nga xam ni moom moo di campagne boobu donc ñun mënuñoo gëm. te du jàpp nañ ne du dëgg waxu ko yàq la rek waxu ku daanu ci saret la président Macky Sall amul ay millions wala ay milliards yu ko nit jox bu weesoo li nga xam ni ay nit ñoo xam si ci anam yu leer ñoo ko yëkkati jox ko ko ak it loo si moom ci li mu ko yàlla wërsëgale ku si ñëw ak ñun ñi nga xam ne dañ doon cotiser donc loolu ci la ñu euh, euh, kolo kolo euh, jël dém taf ca dugóor ci noonu la ñu demee campagne mais amul benn yoon foo xam si dafa ay milliards li may li may mujj mooy. Euh, nañu xam aussi que nit kilifa gu toll ni président Lamine Diack ñu jox ko cër lool yaakaar naa ni eh, bu demoon bay soutenir am na ñeneen ñoo xam si amaana ñoom la gënoon a jige man en tant que membre du cabinet de du directoire de campagne de Macky 2012 nekkoon ci wetu président jige ko lool awma benn yoon boo xam si gis naa président Lamine Diack ci suñu dispositif de campagne du ci wàllu koppar du ci wàllu xelal du ci wàllu benn forme de soutien amaana mënoon na am yéene. mais ñuy fàttali aussi ni am na ñu mu gënoon a jege ndax moom bu ñu fàttali bokk na ci ñi nga xam ne dañoo doon théoriser la candidature unique de l'opposition autour de benn Siggil Sénégal te président Macky Sall moom xott moo nekkoon ci candidat ci coalition boobu ci candidat bu déclaré woon nekk ko xam Sénégal yi ñu ko doon bàyyi xel bu taxoon ni moom gënul gëmul candidature unique gëmul également li nga xam ni moom mooy euh, li nga xam ni mooy wut benn candidat rek nekk ci ginnaawam ñuy foog ni kon moment boobu. xañ na président Lamine Diack bu amoon ku muy soutenir xañ na candidat yu gëmoon loolu wala ñu nekkoon ci disposition yi ñoom la doon soutenir mais loolu yëpp li ci am solo mooy moom wax na euh, nañ ko laaj li mu wax fu mu ko teg ak ci yan preuve la ci am et que bu ñu fi nekk rek euh, parce que simplement bëgg nañu taxal wala moment bi ëpp opposition wala ay nit ñoo xam si bëgg nañu manipuler te xañ na li ñu tànte yëpp mënut a dem Euh, Sénégalais yi topp ñu leen bëgg nañoo yàq xelu nit ñi ñu ñuy gëmloo ni oui président lii président la laa journal bi bind citéwul benn yoon le président Macky Sall moom Lamine Diack mi nga xam ni nee nañoo moom moo wax loolu amul benn yoon ci propos mi nga xam ne cité nañ ko fu mu tuddee président Macky Sall wax na nag moom ci bu nu sukkandikoo ci xibaar yi jigéen ci journal boobu ni xaalis boobee nga xam ne moom jël na ko ci autorité russe moom da ci doon waajal boppam ngir candidature am ci élection présidentielle yu 2012 ba loolu antawulee Euh, euh, am na loo xam si bëggoon euh, mi ngi ko jëmale woon ci mobilisation jeune opposition bi ngir nasaxal président candidature président Abdoulaye Wade mais loolu yëpp ay waxu journal la rek ay wax la yoo xam si war a nañ ko càmbara wax bàyyi yoon aussi mu def ci liggéey bi bu ko defee bu ñu demee ba ci cëppaandaw ga xañ na rôle bu ci ku nekk joué daañu ko xam mais pour l'instant jàpp naa ni teel nañu tirer ay conclusion wala ñu naan diw tax na ci diw tax ci lu ci maanaam yaakaar diglu yàggul